Euh, monsieur Mamadou Gueye euh, euh, de la coalition Bougane 2024 donc sant yàlla vraiment gërëm parce que c'est une épreuve extrêmement difficile vu position aussi et le travail qu'on a à faire parce que aujourd'hui on est à presque 70 pour cent on est au deuxième une région à compléter donc euh, et le nombre n'est pas tellement tellement tellement Il nous faut aujourd'hui euh, minimum valider 19 000 Heureusement, on a un stock avec tout le travail fait. Donc, on va s'y atteler rapidement dans les 48 heures pour déposer ça et passer le deuxième tour. Le même constat comme euh, par exemple euh, ceux qui le problème je ne peux, pas statuer là-dessus. Je pas encore réellement regardé le procès verbal.

Des doubles américaines, on est à 20, 20, 29 000 et quelques. Il nous une région à Je crois que ça peut aller. Dès nombre aujourd'hui des parents qui vont repasser n'est pas le deuxième tour, sant yàlla qu'on est à ce stade la position de 84e qui est quand même un peu difficile. Merci. waaw ci wolof man la Mamadou Gueye euh, nekk mandataire coalition Bougane donc sant yàlla rek bi ñu saytoo suñuy parent parce que ak position bu metti bi ñu amoon gëm nañ ne tey liggéey bi ñu ci def moo tax tey sax ñu génn deuxième tour et que ñu ngi sant yàlla parce que tey jii validé nañ six région mu des suñu benn région am nañ gàpp aussi boo xam ne liggéey nañ ko denc ko ba tey jii ñu ngi ñuy laaj ñu yokk vingt neuf mille ci vingt neuf mille boo amee dix neuf mille rek da ngay jàll loolu sant yàlla la tout en disant que quand même euh, lu doy waar a ngi ci réew mi loo xam ne parrainage boo xam ne metti na ci ñëpp ñoom sax reconnaître na ko mais force et de constater sant yàlla bi ñu amee ay militants engagés ay militants yoo xam ne tey ñoo ñu permettre ñu génne deuxième tour parce que lii boo amul ay militants yoo xam ne yow la ñu ne gëm la c'est extrêmement compliqué avec ces doublons et amoo benn visibilité on va exploiter maintenant li nga xam ne mooy procès verbal bi ñu jox mais sant nañ yàlla parce que doublon interne yi xeex nañ ko ci li ma gisagum li ma séen amuñu doublon interne loolu sant yàlla la maintenant on va continuer le travail et gëm naa ne tey à 70 pour cent liggéey bi ñoŋ na li si des dañ koy complété ji et on se donne rendez-vous ci ñaari ayu bés jour ouvrable bon on a on a la latitude de compléter plusieurs régions parce que six la ñu am donc jàppaleen ni yeneen yëpp fu nu neex rek donc on va essayer aussi foofu yëpp aussi ñu matal ko parce que gab bi bariwul mais li am solo rek mooy sant yàlla rek biñ ci génnee ci premier tour bi parce que c'était pas évident boo xoolee fi ñu nekk ci tirage bi dafa xaw a xóot mais sant yàlla. am nañ doublon externe te looloo ñuy permettre ñu corriger pour sa pour duggat ci course bi incha allah yàlla def na ne aussi liggéey nañ ba am stock boo xam ne ça va nous permettre ñu corriger rapidement lii doublon externe yi ñu ngi ci vingt neuf mille mais ci vingt neuf mille yi moom dix neuf mille lañ soxla. pour passer quand même li nga xam ne mooy plancher bi et génn ci parrainage maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen encouragé nag ngeen moom fu nu sonnee dee ngeen fa merci les gars am mu nekkoon le mandataire de Bougane Gueye Dany donc mën nañ jàpp ne ki nga xam ne moom mooy Bougane euh, daal dinay euh, validé li toll si vingt cinq mille deux cent trente cinq parrain il est euh, il li nga xam ne mooy doublon yi nga xam ne war na koy yokk lu toll si ah, li nga xam ne moom mooy vingt neuf mille six cent 22 euh, doublon externe la war daal di euh, yokku ki nga xam ne mooy Bougane Gueye Dany également war na daal di lu toll si 22 mille 622 doublon la daal di externe la daal di am donc moo war daal di régulariser toll si 18 996 euh, si lu wàllu toll si wàllu euh, parrain parrain ak ay régions yi nga xam ne dégg ngeen mandataire mu war ko daal di complété donc Bougane Gueye euh, Bougane Gueye donc ay mbiram si li nga xam ne moom moo loolu moo ñeel li nga xam ne moom mooy mbiru Bougane Gueye Dany par rapport li nga xam ne moom mooy élection présidentielle yi nga xam ne ñuy tolloon si li nga xam ne moom mooy mburu parrainage donc Bougane Gueye en rattrapage la dem comme ki nga xam ne moom mooy Boun Abdallah Dionne Idriss Seck wala yeneen euh, candidat yi nga xam ne seen i dossier euh, war nañ euh, indi ay ay ay ay doublon yu gën a fiable mën jàll si li nga xam ne lu ñeel wàllu vérification des des parrainages sànq maa ngi koy wax par rapport ak li nga xam ne moom mooy list bi si Sissoko dañ ko daal di rejeté